bisimilah asalaamaaleykum ñu ngi nuyuwaat di bu baax mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñuy topp jataay bu ne euh, desiwaat nañ ci seen jataay jataayu xasida ànd ci ak ndaanaan lu mag tey nag moom dañoo dugg kër Cheikh Ibra Fall fekk fa ndaanaan lu mag sëriñ bare sekk si Zikrulaah di koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi rawatina nag fii mu dëkk ji Touba sëñ Bara Seck moom lañ fas yéene àndal tey sunu jataay sëñ Bara ñu ngi lay nuyu bu baax. Euh, sëñ Bara noo ngi lay fay bu baax bi ñu la fayee. ñoo ngi jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu te ko ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi banaal yeeg li murid yi bëgg ci moom ak li mu bëgg ci sëñ yoonu sëñ Tuubaa bi lépp suñu borom defal ko ci lu kawe njortam di ci teg Serigne Cheikh Jëmb Fall mi fi toog jataayub maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom yàggal ko loolu te wéral ko ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima Fall gi ba ay naalam ci yoon wi ak mébétam ak yéene yi nga xam ne murid yi yéene nañ ko lépp mu def ko ci barke Xaadim Rasul barke maam Cheikh Ibra di nuyu mbokki taalibe yi ñëpp waa Touba ak mbooleem ñi féete penku ñi féete sow côté yëpp ñu ngi leen di mbooleem mboolem taalibe sëñ Touba ñu ngi leen di nuy jërëjëf sëñ Bada macha allah kon xam naa dañu dugg dañu dugg ci turu yàlla wi rek bu ko defee continuer waxtaan wi. incha allah. fas yéene tudd yàlla màggug yàlla dara jënjool màkk barke maam Cheikh Ibrahima Fall. la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 yu gënoo ci nun laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah barke ku dégg ku dégg turu yàlla wi xam ne macha allah comme ni ma ko waxoon bi ñu tàmbali rek ndaanaan tey indil sëñ Bara kon bu ko defee dañuy sóobu ci waxtaan wi rek bu bëggoon xam kan mooy sëñ Bara Seck. ah sëñ Bara moom mooy buntam ci yoonu Cheikh Ibra di sëñ Aliou Fall ñu di ko woowee sëñ Bada Fall ah, mu dëkk fii ci Touba Paaleen waaye dëkk Touba Saam boo déggee boo déggee ñaari dëkkuwaay yooyu nag mooy ah, Paaleen fa la sunu sunu wayjur joxe ñu féete fa muy sunu kër seriñ ñu tuddee ñu sëriñ bi jox ñu ko depuis 91 ba tey ginnaaw loolu nag lañu ñëw fii ci fii nga xam ne fi la sunu wayjur nekk muy Saam Jaxate kër sëñ Mouhamadou Mara. fan mooy cosaanu sëñ Bada. cosaanu sëñ Bada nag mi ngi cosaanu Sam Guèye. sama waajuru góor mi ngi cosaanu euh, Sam Guèye ci côté ci côté Lompul moom euh, foofu Kajoor la foofu ci Kajoor la euh, sama waajuru jigéen moom mi ngi cosaanoo diggante Jinaax ak Maareen sama waajuru jigéen. kan moo dugal sëñ Bada ci turu yàlla wi. turu wi nag euh, dañ ma tudde sëñ Bada Fall jox ma ko may tuut tànk ba tey moom sëñ Mbacke Fall di woy juróom sëñ Mbacke Cheikh Ibra euh, muy def waxtu jot mu di ñu ko loo guddi bëccëg guddi bëccëg ak suba guddi gi ak bëccëg gi mooy guddi gi saa bu tollee ci xewlu ba pare reer ba pare mu defloo ñu ko. ba yëg ne am na nañu coono mënuñu dallul buñ xëy sa yalwaani ba ñëw bala ñu ko jébbal yalwaan ci itam bu ñëwee di tudd yàlla loolu foofu nga tàmbalee sikar waaw foofu laa tàmbalee tur yàlla bi lu ko indi ci baas yi tey ban ba tey foo tudd sëñ Bara sekk ñëpp xam la ci tànt yi fu mu mën a doon ci réew mi ñu la fayoo baas yi de li ko indi moom mooy xam naa ñaanuk sëriñ bi la def loo gi na ko sëriñ bi doon defloo ba ku ñëw ci sëriñ bi dégg ñu ci ku ne ci wetu kër gi sax wala foo nekk ñaari dégg suñu kàddu looloo indi nit ñi di am seen i bis wala seen i jotaay dina soxla dina ci woo ñu di ci teew ba suñ jon yàlla tey ji bi nga waree génn ci baas yi ndax dafa amoon jëwriñ joo xam ne moom nga daan àndal mu dila teeta ci sa kar si wala wala wala da ngaa jekk-jekk rek commencé dem ci baas yi ànd ak sa bopp nga xam ne kenn teetewul waa bi ma demee ba war a génn ci baas yi yàlla dafa dogal ki ñuy wax sëñ Basiiru Ñas sikkaru la am sëñ Mbàkke Ngunda daan ñëw paaleen ay jotaay yu bari fekk booba nag Euh, dafa am lu jiitu loolu ndax bi ñu nekkee ci kër sëñ bi ba yàgg sëñ bi dañu fay jële yóbbu ñu ca daara ja doomam nekk fa muy sëñ Mbàkke Fall dina fa jàngal alxuraan sëñ Mbàkke moomu gisoon ci ñun xam ne sëñ Mara sama magata day jàng moom it mu di ñu defloo tur yàlla wi bu ñu jàngee ci guddi gi xewlu ba pare mu di ñu ko loo ba yàlla dogal ñu jóge foofu sëñ bi santaat daara Saalum Touba Fall war Kéré ñu dem fa nekk fa nekk fa bàyyi ak sëñ bi jël si ñu nag nag indi ñu fii Touba Palen bi ñëwee Palen la sëriñ bi ni nag dama bëgg nga nekk fii ci sunu wet ñu di la eh, liggéeyloo fu jëmit ñuy ànd ak lenn ci ay soxlaam it mu dina ci yónni ñu di ko dem yàlla dogal ñu nekk ci ba tey téye yàlla wi ngir xam na ni bëgg-bëggu sëriñ bi la kon nag bëgg-bëggu sëriñ bi ñun suñu bëgg-bëgg la war a doon moo tax ñu jàpp loolu ne ci di ci yëngu ba yàlla dogal sëñ Basiru Ñas moomu ma wax léegi di fa ñëw mu ñaanu sëñ Aliou Fall Mbawor ñaanu sëñ Xaddim ak bis yu bari yoo xam ne paaleen googu la féete woon euh, sëñ Bas dafa ñëw bu ñëwee bala ñu ko jox kàddu moom mu yëkkati tur yàlla ñu jox ma bu ma yëkkatee ba ñaan ñu doog ko jox mu ñaan nga xam ne ñun ñaar ñoo daan mujje mu bëgg ma lool yàlla dogal benn bis ñaanu seen indi fan Mbaor ma yëkkati ba noppi mu yéeme lool ba kilifa ga sax génn si ci baas bi ñëw jox ma fa addiya bas daan ni bi ma ñaanee mu ne ma dama bëggoon ñuy ànd ci tur yàlla ndax ku la jàppale dinga dem. moom sëñ Bass Niass si kur laa. moom sëñ Bassirou Niass ma ne ko waaw loolu dina mën a nekk yàlla dogal ma dem ci sëriñ bi leeral ko loolu man ma yow de amoo jot waaye saa boo amee saa boo xoolee ba xam ne ak oyof am na ci jàppandal goo xam ne di nga mën a dem nga yëglu rek boo mënee dem ma wax la ni demal. sa ànd ak sëñ ba sëriñ bi la jox ndigal. waaw sëriñ ma jox ndigal ci ñu ñu kii ndax xam na ni jëwriñ gi mënta ñàkk ñuy ànd yàlla dogal ñuy ànd di ànd di ànd ba sañ bas yëngu yi eh, xëy na ak jotam ak eh, doole ji mayatu ko loolu mu daal di dallu nag ñu nekk ci nag di ko doxal. Euh, ba gisaat ci sëñ Modou Aïda Fall mi xam ne ñu it liñ doon def am na lu ci des ñu gis sëñ Modou Aïda mi mooy sunu xarit di sunu lépp yàlla boole ñu ak moom moom it la sëñ ba sàkkoon ci moom ma sàkk ko ci moom moom it mu am ci ak kontante ak mbégte moom it li ma bëggoon doon bëgg-bëggam moom it ndeysaan mu rafetlu ko loolu ñu ànd ci bin àndee waxtaan ci muy def jotaay buñ bu mën a dem rek ñu ànd ci bu ndee ba bët set ñu ñëw ñibbisi ba suñ jonee lay tey jii eh, programme yi dem ba ni koy jatte dinu jatte noonu nag ñu xam ne kon suñu yoonu bopp jaar ci suñu yoonu bopp jot na ñu daal jaar ci suñu léegi fi yaa ngi dem ak sa bopp si programme yi bopp ndax waaw waaw wax dëgg yàlla fi ne nii moom maa ngi dem ci sama jataayu bopp àndatuma kenn wax dëgg yàlla ah man na man sëñ Bada gis naa la bi nga bi nga bi bi nga tàmbalee bi nga tàmbalee gis naa la bi nga tàmbalee heure eh, bi nga tàmbalee baati na lool te eeru mag ñi da damay gis ñiy bàyyi xel sikkar jamono bu ne nga doon ci jàmbaar lool lan moo la yóbbu ci ngay ngay siifur mag ñi. Euh, mag ñi euh, diggante bi ñu waxee Baye Serigne Fall bu neex mag ñi nag bàyyi Serigne Fall ci la bokk Baye Maxat bi daan Baye Serigne Fall moom moo kon Baye Maxat Baye moom sëñ Modou Sow Fall la daan sikkaral moom moo kon maxet Maxat waaye nag dama leen xamoon bu baax ndax dañ daan ñëw ci kër sëriñ bi bàyyi euh, sëriñ Baye maxet Baye Dieng Baye Diop ñooñu fekkante nañ fi Baye Jibi juuf waaye Baye Serigne Fall mii may wax nag moom bokk na ci ñi teete Baye Diouf Baye Baye Jibi Diouf euh, dama ko daan suivre dama daan diggante kër sëñ ba kër sëñ Cheikh Ndigal benn la te ba te euh, mag ñooñu dañ daan def léeg-léeg ñu ñëw siyaar si sëñ bi bu ñëwee taxaw tudd yàlla ba sëriñ bi bëgg ñu daan ñëw doo ko joxel xol siyaar ma di leen diglu su ma leen digloon ma gis sëñ bi bu buñ ko ko defal buñ ko ko dee defal mu ci am mbégte ak kontaante ma xam ne liy bégal sëñ bi kon loolu loolu yoon la loolu yoon bi la moo tax ma may téye yëfi mag ñi di ci barkeelu bu baax di ci jëfandiku ah yow da ngay faral jàng rek ci baas waaw damay yëngu dama yëngu ci xiin yi ah benn benn lii dama koy def waaye damay yëngu ci xiin yi itam nag yu bare yu bare bare bëri yu bëri sax yu bëri yu bëri macha allah yal na la xeb doole fépp lay dugg damay dugg nii dugg nii dugg nii dugg nii côté yëpp dama fi dugg. lan mooy secret sañ Bada ci ci ci baas yi loolu gars yi dañ koy laaj lu bëri coow li boo boo dugg see da dem ci barab sax ñu naan bu ko jox mu njëkk jàng ndax bu jàngee pare am nu demee ginnaaw ba boo jàngee coow li day bari jël yi ba mën nañ faa yàq lu bëree bari loolu lan mooy secret. loolu xanaa secret bi man damaa jàpp ne turu yàlla bi xam nga Cheikh Ibra Fall Cheikh Ibra moo yéeme ndax euh, laa ilaha illallah bi ñu xëy na secret bi moom moo ko xam li tax mu téyal ko boppam xam nga fi ne bu ne laa ilaha illallah Fall la ñuy wax sunu xel yëpp day dem ci Cheikh Ibra Fall Fall jooju nag du Fall yi Cheikh Ibra Cheikh Ibra bi mu koy wax yàlla la doon wax Fall yàlla fobal waaye Fall yàlla. dégg nga bu dëppoog faali Cheikh Ibra Fall jooju moo war a ñu jàpp ni faali Cheikh Ibra la kon damay jàpp ni turu yàlla woowu seex Ibra tee woon ñu ne ci jàpp ko tamit lu dëggu ci ñun nag dafa doon loo xam ne lu dëggu maa ngi giñ ci Cheikh Ibrahima Fall su ma koy def nu ko nit ñi di yëgee ni ma ko yëgee raw waaw waaw ni ñoom ni ko yëgee rek ni ma ko yëgee moo raw waaw waaw ci sama ndax ba ma koy sama xol fulla laa koy defee ak fayda barke borom Touba du ma ko def ngir du ma ko def di xalaat dara su ma koy def dama koy def ci fulla ak ci fayda dama koy jox àq ji ma ko war a jox. li ngay sikkar jamono bi sa air bopp la wala yaa ngi ci diggante sëñ Mourad ak sëñ Bass sëñ ah, nii nag sama air bopp laay kii ak di laal te mag ñi waaye waaye royu ma sëñ Mourad. nga ubbee léegi sa air bopp. waaw lii ma ubbee nii moom ba may tu tànk ba tey moom laa sikkar. danañ delluwaat tuuti ci baas yi nag ndax fi jamono toll léegi dañoo gis ne yéen suñ mbokki tuddkat yàlla yi jam baas yi ni dajeeg yéen ñenn ci ñi nga xam dañu am ak cofeel di leen fa fekk si ba yenn saa yi sax mu jur fa ak yàq goo xam ne day xaw a doy waar lool ba ba ba ba ba kii woote bis bi dana dem mu am mu am ci ay jafe-jafe ci wàllu ay fay sees fay làmp wala ñu yàqal ko fa loo xam ne bu ëpp bu paasee bis bi day xaw a metti ci moom loolu it bëgg naa nga soññ ci ay kàddu ba xam yow ban gis nga am ci loolu ndax yàq gi daan des fois mu bari lool yenn saa yi ñun fa suñu rétention ñu ñu ñu ñu ñu yàq ko ay rajo dam ay sees te te ñooñu yéen la ñuy wuy si est-ce que léegi jotul yéen ngeen wax ak ñoom. Euh, sëñ Baara xam nga ñun bi ñu ñëw di tudd yàlla bi ñu ñëw di tudd yàlla li ñu indi woon mooy ñëw tudd yàlla ci fi ñu soxlaa ndax sëñ Modou Minta Fall yal na yàlla la leeram te taas ñu ci barkeem dafa wax ne tur yàlla bi ndëndum buur la dee su ko tëggal baadoo la bi ñu ñëw di tudd yàlla euh, jëmm jën ko doon defal moo ñu yëkkati woon waaye nag buñ ko yëkkatee ñi koy dégg te yàlla ñor leen. damay jàpp ni ñooñu yàlla leen yor ñor tax ñu ñëw bu ñëwee nag amaa nag la ñuy yëkkati seen seen bopp. parce que loolu amul abrax. abrax jël yi waa xam nga euh, sëñ Cheikh Mbow dégg nga moo xam ne mu ni gura gura gu ne am na sànqar xëy na euh, fo fo foo gis euh, dëgg ne fa ñaare leneen mën naa ne ca wet ga waaye ñun moom bi ñuy ñëw dëgg ñu indi fulaa ñu indi faydaa ñu indi ña nga xam ne dañuy daanu di yàq ñun ñun ñun suñ dem yi wowuñu leen ngir ñu ñëw fa di yàq déedéet woowuñu fa kenn ngir mu ñëw fa di yàqal kenn li ñu fa indi daal mooy tur yàlla bu ñu ñëwee ñun ñi luñ yëg ñun luñ yëg loola la ñuy def keneen kay defit leneen lam yëg xëy na loolu la def waaye nag def dara ba noppi yàq ndax mag ñi daanan daanu di jaar ci peri sàkket yeeg naa ndox mu tàng di ko sëlmu di ko jëfandikoo bu yàggu dara màggalu Tuubaa sama kër sëriñ loolu am na fa ndox mu tàng man doon seggee kafe ga ci lan doon bi may tudd yàlla moom lañ doon raxasoo ko kii ba tey loolu mi ngi fi ne si mën taxaa doon wax ni li fi newoon jóg fi wutin yooyu fi jóg kon ba tey jéll yooyu ñu ngi fi kooku wutee nañ ko doon amee nañ ko doon wutee amee ko nañ ko doon amee kon damay jàpp ne ba tey jël yooyu ñu ngi fi waaye eh, ñi nga xam ne dañuy ñëw di defi jël ba noppi di ci boole leneen nag baag yàq di am a ah, wax dëgg yàlla loolu moom sant ñu leen ko tey ñu ngi leen ci soññ bu fekkee ni euh, loolu ñuy def mën nañ ko ba ñu bokk ko moo gën. ok jërëjëf kon soppe yi noo ko déggandoo noonu euh, yéen jël li mënut a ñàkk ci yoonu murit ndax looloo sos yoon wi waaye nag bu dee bay jur ak yàqit joor na ñu xool nuñ ko waxtaanee ndax yéen ak euh, sikarkat yi yéen a ànd yéen a far ñu bokk teen ñooy laxasoo ay goj sëñ Bada ndax am nga métier mooy liggéey di ci yëngu di ko boole tur yàlla yi wala sëñ Bada moom ci tur yàlla bi rek la nekk. bi may tàmbali wax naa la ne la maa ngi ci loxoy sëriñ bi sama wayjur daf maa yëkkati jox ma sëriñ bi sëriñ bi man ne ci ay loxoom ba bi sama wayjur di dund mu ñëw ni mu ñëw daal di ni mu mu wooloo ma sama wayjur ma ñëw mu ni ko sëñ bara mii kat dama bëggoon nga xoolal ma ci mbokk yi ku dem ci këram wàcc naa ko waaye nag yeewee gu ma ko damaa bëgg muy xëy saa bu xëyee di xëy si ci man ba tey jii ci loolu la nekk. léegi yaa ngi boo xëyee ci sëñ bi. fi mu toll nii may wax nii su ma xëyee ci sëñ bi laay xëy ba mu fatu ma doog a def ñu bi mu amee programme tàggoo ni ko dama ci. macha allah loolu doy na métti sëkk kon bu ko defee xam naa da ngay ñëwaat tur yàlla wi rek bu ko defee ñu door a eggale waxtaan wi dal dañuy jeex bu doonoon badar bu doon badar jeex mbaate benn baay faal du ñibbi la ilaha illallah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 لا إله إلا الله فعل لا إله ba tey ñu continuer kon waxtaan wi rek xam naa ne émission bi la ci des bariwul sax technicien baa ngi signalé léegi euh, damaa gis sa sikar itam wala fal da ciy bari lool damay gis ngay jàng wala fay sëñ Saaliw ci sa biir sikar wala falu euh, sëñ Sidi Muxtaar di jàng wala fali Cheikh Ibra te loolu nu ñu kon woon ci sikar bu njëkk ci air mag ña ci ñeneen ci ñi nga xam ne ñu ngi leen di bàyyi xel ñoom daanaka da daan tudd yàlla rek turu yàlla rek lan daan wax waaye sësikar dama gis wolofale da ci bari lool wolofale yooyu may jàngit li waral ma di ko ci def mooy euh, olofalu Cheikh Ibrahima Fall man ab Baye Fall la olofalu Cheikh Ibrahima bi li may wax nii lu yàgg la xam naa quatre vingt quatre vingt dix huit astaghfirullah laa nekk nja ca daara ja sëñ bi ñëw fa yor boobu mi ngi yor benn ab R18 sëñ bi ñëw fa àndaale ko teg ko ci table de bord bi daal di ñëw ma daal di ñëw mu nuyu ko mu ne ma sama ràbb bi daan may teg loxo na saa sama sëriñ ne ma sama ràbb bi ma ne ko Fall maa ngi si ma mu ne ma yaa ngi ci jàmm mbaa yaa ngi góorgóorlu ma ne ko maa ngi góorgóorlu mu ma yaa ngi si kar ba ma ne ko waaw maa ngi si kar mu ma mu ne daal di wax ku ne wax euh, euh, Cheikh Samb Kalla moo yoroon oto bi yal na yàlla dolli leeram ni ko am na téere bu ne ci kan jox ma ko mu ñëw muy olofal sëñ Moussa Ka bii mooy àddina ndax day bëgg a jeex olofal Seex Ibra ma ko jox ni ma am lii dee ko jàng bi ko jàngee bi koy jàng yàgg na 97 laa la la la laa ma ko doon boobu ma jàng ko di ko jàng ko jàng ba yàlla dogal mu ñaar fa ne ma yaa ngi jàng olofal ma ne ko wax mu ne mokkal nga ko ma ne ko am lu ma ci man de mu naan ma jàngal ma yëkkati ko mu ne ma ndeysaan macha ko dee ko jàng dama am solo lool looloo indi may jàng olof ba tey jii day toog ma di ko jàngal olofali olofal Seex Ibra Faal looloo waral looloo waral nga géej ci olofal ah, looloo tax ma bëgg olofal bu sëñ Musaa Ka bind Seex Ibra rek ñaare ma ma ma jëm jéem koo gëstu. waaw loolu moom macha allah ñi lay topp xam nañ loolu ci sam njàng wala fali macha allah jàmbaar nga ci loolu ku la soxla maanaam fu muy jaar day ñëw ci yow direct wala am na foo koy jaar. ah man nag boo ma soxlaa nga maa woo téléphone ñu waxtaan bu ñu waxtaanee ba kii rek incha allah. ñu ñëw teew ci kii boobu. kon sëñ Bara ay menaces rek yi yeneen ñi di am moom amul loolu ku ko soxla rek da ngay ñëw ci loolu. waaw amaguma ko wutaguma ko du ma ne duma ko wut nag waaye wutaguma ko daal maa ngi ci maa ngi ci yoon bi daal loolu nag ndax ginnaaw ba nit ñi dañ lay soxla ci barab yu bari te yow toogatoo léegi da ngay fanaan ci baas yi di dallu xëy na nit soxla la bu fekk ngay dallu wala nga jël programme yi coono yi baas yi jàpp la nga fàtte programme est-ce que jotul nga am côté boo xam ne da koy jox mu téel loolu. waaw waaw sëñ Bara jot na jot naa ci loolu waaye damaa xalaat ni jot na jotut ndax damaa yaakaar ni bu jotoon rek dana yomb ndax. ah kay ñàkk ñu ci am ak bëgg ñàkk ñu ci am ak bëgg ñàkk ñu cee euh, euh, ñàkk a dox xëy na damaa jàpp ni daa daa daa jàppandeku daal waaye noo ci xalaat jamono yëpp noo ngi ci xalaat ndax damay bëgg ma it su ma xasee ba yëkkati dara te ko ci loxol nit rek dootuma ci soxlaati dara waaye nag. ma def ci ndànk ba ba nga xamante ne bi ku ma ko bàyyee rek loola moom dootuma ci kiyati bu ca dee defar xayrin bu ca doon yàqit yàq gam te yàq daf lay neex macha allah loolu ne mag ñi mag ñi sikarkat di laaj naa la ko léegi yaa ngi leen daan siifur bu baax bu baax a baax koo ci gënoon bàyyi xel koo xam ne maanaam yaa ngi koy roy ba yëg na yaa ngi koy bàyyi moom dama ko bëggoon lool hmm. dama ko bëggoon lool damay damay diglu damay diglu ay daajam ay daajam donte sax duma jël daatam yëpp waaye dama koy déglu muy neex nga xam ne lu saa nit lu mu yëkkati rek saa bu ko yëkkati rek ma xam ne lii daal di bàyyi Serigne Fall. bàyyi góor mi Fall kenn nga.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 baayu gër ñi faal kenn lan mooy différence eeru mag ña ak ak gone yi li ñuy sikkar tey lan mooy différence bi euh, mag ñi gone yi mën nañoo jël sax seeni eer di ko di ko dëmbat. mais léegi dañuy wax ne gone yi sikaratum léegi ak mag ñi ñoo daan sikar ak sikar dañ ko yàq ak léegi da nga koy dégg ci ñeneen ñi. waaw dafa am da cee am da cee am kon waaye ba tey ñi ni mag ñi doon sikare gone yaa ngi nii sikare. waaw ah, ah, man mii noonu laay sikare. différence bi mag ñi ak gone ñi lan la. différence mag ñi gone xanaa dañoo doon mag ñi ba noppi eh, yor cosaan la rek gone yi ñëw doon ay gone di ko jàng seen baat mag ñi seen baat ak gone yi ak seen baat. xam naa ko loolu mooy différence bi rek waaye gone yi ba tey ñu ngi tudd yàlla waaw ah, wax dëgg yàlla gone yaa ngi tudd yàlla macha allah xam naa kon bu ko defee technicien baa ngi signalé ne waxtu yu jot na xam naa ba lay jox nga kàddu tàggoo rek ju hmm. jox xam naa nag dana am yeneen jataay hmm. waaw dañoo tàmbale yow bi waaye yow dana am yeneen jataay yoo xam ne mooy gën a yaatu bi hmm. ah kon ñu santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi gërëm sëñ Tuubaa gërëm Cheikh Ibrahima Fall di gërëm mbooleem ñi fi teew ñëpp di gërëm ci ci ci di leen gërëm ci liggéey bi ngeen yor di ñaan sëriñ bi defal leen ci ndam te yokku leen ci barke Xaadimu Rasuul ba fi ñuy dégg mboolem tele yi ñu dégg leen fu ko raw ndax yàlla mën na ko te it yàlla téléwul dara mën na ko yàlla na ko def barke maam Cheikh Ibrahima Fall di sant bu baax eh, sunu ñaari way wayjur kenn ki jiitu ji kenn ki fi nekk ñoo ngi ñaan sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko muy soxna Jaal Sekk sunu wayjuru góor sëriñ Ñaŋ Seydou sekk sunu borom dolli ay leeram te taas ñu ci barkeem barke maam Cheikh Ibrahima Fall di sant bu baax a baax mboolem jànkati xasaay di waaye mboolem tuddukati yàlla yi di ñaan suñu borom yàggal leen lool te wéral leen seen liggéey bi yàlla bokk ci liggéey sëriñ bi gën a nangu barke maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla mën na ko yàlla na ko def noo ngi saar ñëpp tey jégalu ñëpp di baalu ñëpp ak tey baal ñëpp ak jërë ngeen def. ok jërëjëf sëñ Bara sekk Seck Sikurula magu rakku sëñ maara Seck moom itam moom lañ loon tey ci jataay bi sëñ Bara ñi ngi am mbégte bu baax a baax macha allah suñ xol sedd na bu baax di leen jox dig daje ci beneen jataay ci beneen daanaan comme niñ leen ko daa baaxoo waxee rek jataayu xasida daan suñu yitte mooy képp koo xam ne yitte woo ngeen ko ñu fexe ba indi leen ko toog ak moom mu jàngal leen xasida ñu waxtaan ak moom seen yitte rek mooy suñu yitte kon ñu ngi leen jox dag daje ci beneen daanaan